faratay njàpp yi yéene moo ci jëkk waaye nag daa am ay wax yu ci aju moo tax bëgg koo mujjee bu ko dee wax waxaale ca wax ya ca aju kon mu tàmbalee ci raxas kanam raxas kanam farata la ci njàpp kanam gi daa am guddaay ak yaatuwaay guddaay bi moo tàmbalee fa kawar baaxoo saxe ca jëba ñëw ba ci sikkim bi moo xam am na kawar moo xam amut kawar yaatuwaay bi nag moo tàmbalee ci nobbee ba ca nobbee kon bu dee raxas kanam gi na ne ni ko guddaay beeg yaatuwaay bi loolu mu ne fa kawar baaxoo saxe mat na caa seet ndax bu dee koo xam ne dafa leel leel ja ca bopp la bokk duñ ko boole ci kanam gi ba di ko raxasaale bu dee ku yiif kawar gi sax jëm si ci jëbi la bokk ci jëba dañ koy raxasaale jàpp ne ci jëbi la bokk bu raxas kanam daal na xam ne foofu lay teewloo yéene ji te it nag na daj kapp ay tuñum sax bu ngebee nam mën a ngebe lay feeñ ca tuñ ja war na koo raxas jëbi bu amee ay ras-ras ba tey kanam gi foo ci xam daa xóot moo xam baru bët mu la moo xam feneen la war na koo nemmiku bu baax muy sikkim bi muy feneen ci kanam gi foo ci xam ne sax na kawar waaye boo dee xool di siin deru yaram wa fa kawar ga saxe kon na aajo nga yëngal kawar googee ba ndox ma jàll ca deru yaram wa loolu moo tudd xaliil foo ci xam ne nag sax na kawar waaye kawar ga dafa fat nga xam ne boo dee xool doo séen deru yaram wa fa kawar ga sax kon da nga yëngal rekk kaw ga ba ndox ma dugg ca kaw waaye du aajowoo nag nga di ko yëngal ba ndox ma dugg ca biir li biir ba àgg ca deru yaram wa bu yëngale kaw gi rek ba ndox mi dugg ko rek mu daal di doy kon foo fi déggee xalil kawar rek lañ ci jublu mooy nga yëngal kawar ga ba ndox ma jàll ba ca deru yaram wa deru yaram wa tooy nga jàppale foofu nag ne li nga tollu ci njàpp moo tax ñu wax loolu waaye bu doon ci sangu farata moom fu kawar man di nekk muy ci bopp muy ci sikki muy ci feneen ak lu mu fat fat daañu ko war a yëngal ba ndox ma jàll ba ca biir ba àgg ca deru yaram wa wees na ñaari farata ci ni mu wàññee mooy raxas kanam ak raxas yaari loxo yi mu ñetteeli ko nag massa bopp bi day massa bopp bi lu sax kawar ca kaabaab ya te bokkul ca kanam nga itam na ko massa waale kawar ga itam lu ca yooru ne bu dee boroom kawar yu guddi yi bu dee massa da koy topp rek canam yooroo ba fa mu yem bu dee ci sunu yoon wi nu nekk mu yoonu Maalik moom massa bopp bi lépp lay doon massa su massa lenn la bàyyi leen la du doy faaw rek mu masa lépp buñ nee nag masa boobu farata la day am dem dikk maanaam dem wàññiku dem bi mooy nekk farata dellusi bi doon sunna mel ne boo tàmbalee ci jóge ji masa ba àgg ci dox ga loolu mooy farata nga wàññi di kuwaat nag masa ak say loxo ba àgg ci jóge loolu mooy sunna waaye nag kenn du ko def yett yoon ba lu ëpp yett li mu ci teg nag ne bu léttoo firi létt yee du ca war moom am nag teqale bu fekkee ne kawar kese gën a létt breek njàpp moom kawar kese gën a létt booloo ci beneen kawar bu aajowoo firi létt moom moo xam góor a ko def moo xam jigéen a ko def ci yoonu al imam malik dañ caa andi ak jafeel lool da ngaa njëkk a wax nag ne su fekkee ne kawaru bopp rek la létt booliwu ca geneen kawar booliwu ca yeneen i wëñ te muy jàpp boole ja nga xam di ca ngaay jàpp la kon lu mu dëgër dëgër du aajowoo dindi ndegam kawaru boppam rek la létt bu dee jàpp moom du jara dindi benn yoon waaye bu dee ci cangaay moom bu dëgëree ba ndax mu mënta jàll mu war ko fii dindi létt ya bu dee nag da caa boole yeneen i wëñ mbaa yeneen i kawar dañ koy teqale suuf lum léttu bu dee génn wëñ mbaa ñaar daal moom dana amut jàpp ndi ci su fekkee ne dëgërut mën na koo bàyyi noona moo xam day jàpp moo xam day sangu farata waaye nag bu dëgëree itam faaw mu war ko dindi bu fekkee lëm léttoo nag ëpp na yaari wëñ mbaa yaari kawar nag moom dañ ne faaw da ko war a dindi moo xam dëgër na moo xam dëgërut moo xam day jàpp moo xam day sangu farata loolu moo tax loolu moom diis lool ba àgg ci lool moo tax kon jigéen ju bëgg a sàmm diineem daal te fekk mu nekk ci yoonu al imam malik wi sëriñ Tuubaa toppaloo taalibe yi su mënta ñàkk léttu day létt rek kawar boppam bañ caa boole geneen wëñ bañ caa boole geneen kawar te it mu bañ a dëgër nga xam ne bu dee sangu farata bu sotti ndox ma rek mu jàll ca biir wala boog mu wut mbaxana yooyu nga xam ne dañ koy sol rek ak a summi nga xam ne bu dee jàpp mbaa muy sangu farata man koy summi teg fee bu bëggee sol nag sol am na sax ci ñi ubbee ci waa Màkka ñuy araamal mbaxana yooyu waaye am nañu wax dagan nga te it mënees naa sukkandikoo seeni wax góor moom nay moytoo léttu ndax nee nañu boroom dëkk bii di boroom daarul monte yi da daan def ku mu gis kawaram xaw a sëq dara rek mu digle ñu wat ko ndax ne kawar gu mel ne li ci ëpp foo ko fekk janaabaa nga ca mooy kooka ba muy sangu janaaba raxasiwul bopp ba na mu ko war a raxase te ca ngaayal janaaba su baaxut julli du baax te julli gannaaw gëm yàlla moo gën a màgg ci lislaam bu dee massa bopp bi dem bay wàññiku dañoo bëgg loxo yi ronu ca suuf ndegam léttu woon na loxo yi ronu ca suuf ndax fa féete woon suuf ca létt ya loxo yi mën koo masaawaale bokk na ci faratay njàpp raxas ñaari tànk ñi ba ëmb dojar ya tuuti ndax yamale ca képp képp dafa xaw a jafe mu ne nag dogar yi boo ko xamut mooy ñaari yax yooyu fés ci tengoy yeel bi ci nekk bu bañ a fàtte nag xóot xóotu ndëggu li bañ a fàtte fi ñuy wax ay siis fu xaw a ruqi rek na ko nemmiku ba ndox mi ak loxoom àgg fa ba tey xalil baaraami tànk yi bu dee ci njàpp lu ñu sopp la bu doon ak sangu farata moom farata lay doon ni yàlla bindee baaraami tànk dañoo jege kon bu dee ci njàpp moom diggante baaraam bu nekk moroom ma mu nemiku ko raxas ko ci sopp rek lay am nee nañu bu dee xalil baaraami tànkum ndeyjoor dañoo sopp mu tàmbalee ci baaraamu sangaleñ dem ba ca baaraamu day ba baaraamu day bu mujj bu dee tànku càmmoñ nag mu tàmbalee ci baaraamu day ba wuti baaraamu sangaleñ ba bokk na ci faratay njàpp bu sottee ndox mi mu bomb boole ci ñu koy tuddee ragg mbaa raxas suñ ko raxasloo ni ki kanam mbaa loxo mbaa tànk sotti ndox rekk du doy raay rekk du doy waaye dañoo taamu bomb ga mu bomb rek bu yem bañ ko ëppal lool ndax bu xëyee ci diineem bay bomb bu baax a baax te xëy na sax foofa takkut seytaane mën na koo andil jax-jax yi te lépp luy andi al waswasatu jax-jax yi ci mbirum diine dañu ne al waswasatu jax-jax yi ci xeeti jaamu yàlla yooyu day yàq jaamu yàlla ga day yàq diine moo tax ñu bañ bu xeer ci diine ba bu dee ragg di ko ragg ka bomb ka bombaat bu méttee métti loolu mën na ko andil jax-jax yi du ñu sart ne faaw da ngay boole sotti ndox mi ak bomb mën ngaa njëkk sotti door a bomb mën ngay boole sotteeg bomb waaye nag bu sottee ndox ma na ko daal di bomb balaa ndox ma fendi bu ndox ma fendee mu door di bomb kon du nekkati ak ragg gañ ko digaloon almuwaalaatu moom la téere ndaw yi daan tuddee alfawru ñu koy firee gaaw fekk na jubluwuñ ca gaaw dëgg-dëgg lañ jublu rek mooy sëtale lu mu def jàll def la ca topp ba lépp àgg dañu bañ rek mel ni mu raxas kanam gi tàmbalee waxtaan mbaa muy def leen ba mu neex ko mu bëgg a jàll raxas loxo ya loolu bu ko defee tey ko moom day yàqu moo tax ñu wax ne sëfale googu farata la ndegam fàttewu ko te it mën na ko kon nag warees naa wax su ko fàttee mbaa da koo mënut luy àtte ba ku doon jàpp ba yàgg mu fàtte woon ni moom kat ci njàpp la nekk gannaaw ba nag mu door koo fàttaliku bu fekkee jotu faa def dara lu tëj njàpp day jàll rek ci njàpp ma waaye kon na yeesal yéene ja yéene mottali lam defoon baax na yàgg ak ñàkk yàgg ci yam fàtte yàllaa ko bindee nit waaye nu yéeniwaat nag yéeni ji yees ca mottali la des ci njàpp ma koo xam ne nag moom dafa mënta sësale njàpp ma dañuy seet ba xam la tee mu mën a sësale njàpp mi moo ko def wala mënu ci woon dara dogalu bi yàlla buñ ne moo ko def rek mooy dafa sàggan waaye mën na caa sàkk pexe laata muy am mel ne mu dem fa mu wute ndox ndox mu doy na fa sëkk ba mu wut nag mu wut ci ndox loo xam ne day nattable dana doy am du doy ba mu ñëwee nag fara doyut nga xam ne faaw mu delluwaat wutiwaat ndox te fañ koy wutee jegewut kooku bu jàppee ba ci biir ndox ma jeex dañuy wax ni moom li ko tee mën a sësali njàpp mi moo ko def ndax mën naa wut ndox mu doy sëkk kooku dañuy bàyyi ba mu wutiwaat ndox ba am ba noppi su fekkee cër ba mujj raxas fendi na te fekk jamono ja tàngul seddut moom ci boppam it xëy na magewut waxambaanewut kon cër ba mujj raxas bu fekkee wow na rek loolu ak yàgg la kon day tàmbaliwaat njàpp ma la mu njëkkoon a def yàqu na bu fekkee nag cër ba mujjoon raxas moom fendiwut kon yeggut mën naa jàll ki nga xam ne nag yàlla dogal rek mënta sësali njàpp ma ndax bu dee wuti ndox mi ba ñu wut ndox wutoo na loo xam ne doyoon na sëkk waaye daa ñëw nag bay jàpp ba ci biir ndox ma tuuru moo ki fàtte woon lañ yemale su wutaatee ndox day àggale rek waaye lam defoon baax na nga seetlu nag li ñu waxoon léegi ne cër ba mujj raxas su fekkee ne wow na te fekk moom ci boppam du mag du gone jamono ci tam tàngul seddut kon cër boobee su woowee ñu xam ne yàgg na su wowut ñu xam ne yàggut taxul ñu wax nag bu fekkoon ne kooko day mag wala muy gone wala jamono jooja tàng mbaamu sedd mbaamu bari mbooya kon nu ñu takkee yàggeeg bañ gi yàgg xëy na kon dañ koy takk rek ci aada buñ nee boobaak léegi ci aada yàgg na ñu ne yàgg na buñ nee boobaak léegi yàggut ñu ne yàggut bu fekkee ba muy jàpp dafa am lum ci fàtte woon te bokk ci farata yi li am na cërub lum boo xam ne laaru ko woon mel ne muy jàpp fàtte raxas loxo càmmooñam kon dañuy seet ba xam gannaaw bu yàggee ba nga xamee ne cër ba mujj raxas wow na na ko door a fàttaliku wala da ko gaaw a fàttaliku nga xam ne cër ba mujj raxas wowut su fekkee boobaa léegi yàgg na loolee mu fàtte woon dong lay def duñu sopp mu baamuwaat la sësoon ca moom niki bu yàggee loxo càmmoñ bi nga wax rek lay raxas duñ ko wax ne ko jàllal masa boobu ba jàll ba ca tànk ya su fekkee ne nag da ko gaaw a fàttaliku nga xam ne cër ba mujj raxas woowagut dañ koy wax ne ko li nga fàtte woon moom faaw nga def ko mënta ñàkk waaye boo ko defee ba noppi ñu sopp la ca sësoon nga baamuwaat ko ndax ñu tegaloo mel ne li nga waxoon léegi bi mu fàttee loxo càmmoñam raxasu ko ba jàpp ba àggal nag laata cër yi mu raxasoon di fendi mu fàttaliku ne raxasutoon loxo càmmoñ dañuy sopp kon gannaaw ba raxasee loxo càmmoñ ba ba àggal dañuy sopp mu jàll nag massa bopp ba jàll massa nopp ya jàll ca tànk ya ndax njàpp mi tegaloo waat dañ soppoon ku ko na tegalee loolu nag mooy bu rekkee dafa fàtte cërub lëm waaye itam bu fàtte woon ab digg boo xam ne tooyut li ki doon raxas loxo ba ba tànk ba waaye am na ci digg boo xam ne moom tooyut saa yu ko gisee rek mbaa kenn wan ko ko rek na daal di ànd ak yéene mottali njàpp ma daal di gaaw def ko su jullee nag ba noppi door a gis digg boo dee tooyutoon wala mu julli ba àggal door a fàttaliku cër ba nga xam ne raxasu ko woon te mbokk ci farata yi moom julli googa du baax bu dafa raatee njàpp mi ba àggal day baamuwaat julli ga muy genn julli muy ay julli yu bare bari ñoo ci yem ndegam julli yi farata lañu bu fàtte woon sunna nag moom fàtte sunna du yàq am njàpp du yàq julli dañuy sopp rek bu fekkee jàpp na ne njàpp moom dana yàgg ak moom ba mu defaat ci geneen jaamu yàlla mu dem defi sunna soosu ndax bu defaat geneen jaamu yàlla fekk njàppam mi matoon farata yàgg sunna yépp nekk ca moo gën njàpp manqué sunna yéene moo njëkk ci faratay njàpp yi waaye waaye dafa am yu ci aj yoo xam ne da ko ci bëgg sësale moo tax kon yéene farata la ci njàpp bu dee yéene nag ci ba mu raxas kanam raxas bu njëkk ba foofu lay teewloo yéene ja ndax raxas kanam mooy njëkk ci farata yi jëf ci njàpp mi mën naa yéene joox faratay njàpp mi ndax yàllaa ko farataal ci moom mën naa yéene kati am toj ndegam am toj moo ko tax di jàpp mën naa yéene dagan lu itam maanaam mën naa yéene am sañ sañu def boole yi nga xam dañ ne ku jàppul sañu ko ni ki jub mel ne julli wala laal ab kaalil wala wër kaaba bu yéenee yéenee njàpp mi rek bu ci yéene waalee yëkkati sobe itam te ci wàññi dara mel ne fekk na kanamam taq sobe walay tànkam bu yéene nag jàpp ba noppi yéene dindiwaale sobe soosee dara nekku ci mën nañoo ànd bu yéene njàpp ma def ca nangam ci xeeti jaamu yàlla yi am gum génn ci yéene ci ne moom boole moo ko ci du tee bu jàppee ba noppi yépp lay man mel ne bu doon jàpp yéene caa julli ci sibaar dong yem ca bu tee bu takkusaan jotee te njàpp moomu tojut mën na caa julli takkusaan joojee doon ci sax moo waxoon ci am xelam ne tisbaar dong laa yéeni jàppal yéeniwu maa jàppal takkusaan it du tee njàpp ma bu ci dara sikkut ba takkusaan jot mën na caa julli takkusaan wala mu doon jàpp yéene laal ab kaamil te yéenewu ca jul farata donte moo ko tey wax ci xelam ne laal kaamil bi dong kat laa yéene jàppal yéenewu maa jàppal julli sàngam du tee bu jàppee ba àggal dana mën a laal kaamil ba mën a def julli googee mu ne loolu nag bokkiwul ak muy jàpp yéene laabu kese xam nga laabu kese day ëmb laabu xadas ak xabas maanaam laabu kese mën naa jamtalu laabu dindi sobe jamtalu na it laabu dindi am toj kon nag bu yéenee laabu kese nee na ñu du doy faaw mu ràññeel laab ga mu yéene bu dee jàpp kon ne yéene kat am toj ci njàpp ma waaye yéene laabu kese noonu rek mu daal di ëmb xadda sa xabas yaar yëpp te ràññelewut nee nañu du doy su ko wóoroon ne yi toj njàpp def na ci benn mbaa ñaar mbaa ñett bu fasee ci xolam yéene yëkkati toj sàngam dal di génne toj ma ca des ne moom jàppaluma ko du baax mel ne laal na ab sawukaayam ñu ne ko loolu de toj njàpp mu teg ca laal soxnaam te jublu ca laal ga bànneex ñu ne ko loolu tam day toj njàpp moom nag ba mu demee bay jàpp mu ne yéene na maa yëkkati tojum laal gi ma laal sama soxna si waaye yéenewu maa yëkkati tojum laal sawukaay ba foofu génn gi mu génne kee dugal kee mooy yàq njàpp ma nda bu yéene woon yëkkati am toj rek mu yóbbaale yëpp mu baax bu yéene woon yëkkati yaar yi toj yëpp itam mu baax ci takk takk daal moom su fekkee def na yaar mbaa yett yoo xam ne lu ca nekk lu toj njàpp la ba muy jàpp na mu ne leekat laa yéene jàppal waaye lee moom yéenewu moo ko jàppal ràññale ko ci yéene ja jàpp mooma bu baax nde bu yéenee lee fàttalee mbaa mu yéene yëpp mbaa mu yéene kat am toj rek mu yóbbaale yëpp mu daal di doy mu daal di baax dañ ko waxoon ne ko sooy nattable sam njàpp toj naam tuuti te yow sam xel baax na bëriwul lum lay dal da ngay jàpp ne sam jàpp toj na nga daal di war a jàppiwaat moom nag muy sikki sàkk am jàppam toj ne wala tojut te ba muy jàpp ne mu daal di yéene ne su fekkee toj la woon naa day kon njàpp mi toj moomee laa ko defal dane rek su fekkee toj la woon naa njàpp mi toj moomee moo tax ma di ko jàpp loolu du baax ndax yéene ci dafa ñàkk dogu yéene daa war a dogu te moom yéeneem jooju doguwut dañ ko waxoon rek mooy booy sikki sàkk sam jàpp toj na am tojut dogul ne toj na mooy jàpp it dogu ne maa ngi jàpp ngi yëkkati am toj gannaaw bu teewloo yéene ji ba noppi xelam daal di faay yéene ji nag du wàññi dara duñ sart ne faaw bu xasee teewlu yéene ji te ba mu tolloo di raxas kanam day wéy ba njàpp mi àgg gannaaw bu xasee teewlu yéene ji rek xelam nekk ci leneen du wàññi dara teewul nag su ma nee teewlu lépp njàpp mi moo gën su yéenee ba noppi nag gannaaw ba mu wat ci yéene ja moo xam dane maa yéene woon yéenee tuma mën na ko wax ci xelam mbaa ci làmmiñam mbaa boog dogu na rek moom ci bàyyi njàpp mi ni ki de jàpp ba yàgg gannaaw bu nu yéenee mu dogu ci bàyyi ko dem ci wana wa te ñëw tàmbaliwaat njàpp lam defoon dal na yàqu bu xoolal montaram yooyu jamono waxtu waxatit du wax ne kon daa wéy rek ndax waxtu yu xat na mu ne nag bu fekkoon daa jàpp àggal door ne maa yéene woon yéeneetuma di ko wàññi dara ndax njàpp mi àgg na ba noppi waaye li fekk njàpp bi matuwut moom bu wàccee yéene ji rek njàpp ma yàqu di nekk koor dañoo mel ni njàpp ci googu wàll loo ciy def te àggagut boo wàccee yéene ji rek loola yàqu bu dee julli ba ci biir mu dogu ci day dagg julli gi dem ci wann wa jàppaat te ñëw julliwaat julli gi daal di yàqu bu ko daggee bu ko daggut bu tàmbalee koor di feet jant bi so wàccee yéene ji rek koor ga yàqu mel ne yéene woon a woor ndax dégg ni waa Tuuba jàpp nañ ne tey la benn fan mu woor ba ci digg bi dégg ni waa Tuuba wóoruñu mu dogu ci ne kon wàcc naa saa koor kooram googu yàqu naa bu amaatoon dëgg-dëgg bu wóor ne waa Tuuba kat ci dëgg-dëgg wóor nañu it day jàllale kooram bu noppi nag du tee mu fay bis boobu te du tee ñu alamaan ko boole ci ndax wàcc yéene jooju day waral alamaan daañu wax alamaanu koor ñu àggee ca buntam tim nag moom nee nañu daa xaw a woyof xaw a néew doole ba su tiimoon ba àggal wàcc tiim bi ci yéene bi tam tiim ba daal yàqu mu war tiimaat beneen li fekk julleegul ca tiim ba rek su wàccee yéene ja tiim ba daal yàqu ndax tiim moom daa woyof kon bala loo génn yéene ñu bañ a fàtte ne bu dee njàpp mi booy raxas kanam gi raxas ba jëkk ci ngay teewloo yéene ji du tee nag ba ngay tàmbalee raxas yaari loxo yi sopp lañ nga teewlu sunna sa maanaam sunna sa raxas yaari loxo ya ba tolloo ca galax ni ko noonu ba tolloo ca sarax ni ko fu ci nekk rek nga teewluwaale njàpp mi teewluwaale ne yaa ngi toll ci sunnaam yi jëkk te àggagoo ci farataam bi jëkk